bi euh, dañu am euh, nouvelle bu xaw a doy jóge ci kilifa euh, bu mag ministre de la pêche mu yabal ay groupe soumissionnaire lu ñuy wax soumissionnaire ñu war a dem seeti ji chantier naval visite ci kaw contrat boo xam ne war nañ ko maanaam signé ci ay fan yu néew ñu jëmbat ci ay élection ba pare ñu bëgg a doxalin doxalin boobu bu doy waar bu ñaaw boo xam ni euh, li ñuy wax marché public koy def da nga koy ubbi yaatal ko euh, da nga xamal def publicité bu mag li ñuy wax euh, avis d' appel international surtout marché bu toll ni marché public nga xam état bi day def concession benn bien public surtout domaine bu mel ni chantier naval koy def da nga koy yaatal surtout mu am ki nga xam ni yàggoon na muy partenaire bu fi nekkoon depuis 1999 liggéey liggéey bi ba mu toll fii ba mu mucc ayib ba mu am développement tey jii am 600 travailleurs yu fay yëngatu fa daan seen doole muy dugal ci koomu réew mi lu am solo ba pare mu am label international amul benn tey jii euh, entreprise réparation navale bu nekk ci àdduna boo xam ni euh, du point de vue qualité maanaam ci wàllu doxalin parce que moom bateau yu muy jot. yu jógee bitim réew di ñëw du saaginu dañuy ñëw rek war war wàcce marchandise fii nekk ay euh, dépannage du loolu dafay nekk ay ñoo xam ne dañuy commandé depuis extérieur pour wane ne dañu bëgg a ñëw fii def seen maintenance def seen entretien mu nekk bateau yu bari yu ñëw moo tax nag ñu yaakaar ni ay experts yi nekk ci kër gi mu nekk ay liggéeykat waxuma sax Dakar naa maanaam ñaari portugais yu fa nekk waaye liggéey bi lu ci am solo yëpp ñi ñoo koy liggéey ay experts yi nga mën a bëgg a jaay kër gi tong-tong ko te yëgaloo liggéeykat yi nga xam ni ñoom ñooy cadres yi ñoom ñooy syndicats yi nekk waxtaan ak ñoom loolu amul fenn en tout cas Sénégal depuis plus de trente ans euh, bu amee lu mel nii ci wàllu ci Sénégal dañ koy bokk waxtaane ak liggéeykat yi ak njaatige yi waaye doxalin bi doxalin bu ñaaw la ñu yaakaar ni daal am na lu ruumandaat ci suuf luy ñuul ci soow bi loolu la waaw ba tax na ngeen bëgg a sitting dañuy yëngu yëngal comme ni ko Castro di wax yëngu yëngal dina am sitting bu mag bu ñuy def mercredi incha allah rabi à partir de 13h fofu ci euh, Dakar naaf buñ ci paré tamit dinañ def yeneen manam action manam bu ñu jël euh, dem tribunal ak ñom parce que liggéeykat yi dañu organiser am syndicat am droit am capacité et en justice bu dañuy violer seen i droit ci lo xamni teguñu ko ñu xalaat ni am na loo xam ni doxalin bi ñaaw na waaw ci suuf am na luy nuuma daatal ci suuf loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. exactement comme ça ñu dégg ñu ndax comme jàpp nañ ne lii jaarul yoon te dañu ne ci réew boo xam ne réewu dëgg la réewu droit la ah, kon nag yoon la ñu xamal ñépp ne tey jii am na lu xew te li xew d'accorduñ ci ndax. Consultez vous ni à en amont ni en aval kon nous nañ ko